la ñuy dalal ndaanaanu théâtre national Daniel Sorano ndaanaan yi nekk yëpp ci biir weeru koor gi ñu daal di dalal ki nga xam ne moom moo di Adja Ndeye Mbaye Djin ma Djin ma doon tey ji suñu gan ci biir seen émission Weekend Start salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar. maa ngi ziar. di la baalu àq ci weeru koor gi. ah yàlla nu yàlla baal. amiin boole baal ñu fekk ko at yu bari jàll. amiin amiin amiin amiin. bu déwén naree ñaaw yàlla mel ni déwén. ñu fekk ko at yu bari. amiin amiin amiin amiin Adja kontaan nañ ci sañse bi nga ñu sañsel de. ah, ah génne génneel ma génneel ma yére Adja Ndeye Mbaye bi waaye kontaan nañ trop ci sañse bi nga xam ne bi mooy ban moom. bii mooy Boups. sama doom ah ci bii mère kontaan na ci foog ma def ci dara. <laughs> mais da nga di ndaanaan di yëngu ci théâtre national Daniel Sorano. Mhm. alors euh, li nga xam ni moom moo di liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def moom la ñu bëggoon di ko waxtaanee ci biir émission bi nga xam ne moom la ñuy def tuddee ko weekend start maanaam euh, weekend bi dafay démarrer. Mhm. alors bëggoon naa la laaj laaj bu njëkk maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk théâtre national Daniel Sorano naka foofu ak liggéey bi yéen ñi nga xam ne ay fonctionnaire de l'État ngeen. waaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bu tedd ba ci Medina sant suñuy waajur maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu ko teel ak yu bare bare amiin amiin amiin amiin bëgg si loolu nga laaj ci Sorano théâtre national dañuy Sorano man bi may woy defe naa man ñi jëkk a woy ci laa bokk ndeysaan ndax bi may ñëw Sorano booba temps xaar mbay ma jaag rek laa ko xale yi woy yëpp sama ginnaaw loolu ma fekk ndeysaan ñuy samay xarit di samay àndandoo ñu ànd comme li ma dégg léegi Ndeye Fatou wax ko mm-hmm. looloo am ndeysaan Sorano dëkk la boo xam ne boo ñëwee dañ lay jàngal boo mënul sax dañ lay jàngal ba nga mokkal mhm. ñu bari dañ leen fa jëloon pour ñuy aw ak yooyu waaye tey ku ci nekk tey man nga taxaw wax lu nekk ci réew mi mhm. ndax dëkk la dëkk la boo xam ne muy théâtre national Daniel Sorano euh, kii la boo xam ne boo ñëwee da ngay jàngaat ndeysaan loo man man but si da ngay jàngaat mhm, ah, ba tax loolu ma dégg sànq nday Fatou di ko wax loolu moo fa am man nag ba ma ñëwee Sorano xale bu tuuti laa falaa nekk itam ba retraité te ku nekk rek da nga ñaan yàlla mhm. liggéey ba retraité waaye retraite bi nag taxul ma toog dëgg la maa ngay produire mhm. samay cassette mhm. maa ngi dem sama tournée comme ni ma daan def di am samay engagement di tukki di dem di ñëw ndeysaan sant yàlla ndeysaan mais ba nga fay ñëw na yaa ngi ne xale nga woon ki nga xam ne moom moo di Adja Xaar Mbay rek nga fa fekk euh, ndax fa nga jàngee lépp loo xam ne dafa jëm ci way waa ndax xam nga bu si tëbu ma rek way man dama jëkk a jàng nekk dat jàng def dactylographe pendant un an. déedéet kay. waaw mën a fecc loolu nag ca ñaari kale. da nga danga nga da nga jàng dactylo. Ah, moo tegee machine yuuxu. déedéet damay tapp ba nga jooy. nga ni loolu laa man jàng laa man. ah man de. Sorano gee ma nekkoon itam ba ma fa nekkee itam sunu mu sa bu nu mu sàndee voyager dañuy jël machine yi jox may tàpp dimbali secrétaire. loolu yàgg na du ay yow mère kon ndekete ndaanaan ndaanaan nga. da nga di ndaanaan ndaanaan nga ndaanaan ndaanaan nga ndekete. <laughs> déedéet kay. wallaay kon dactylo da nga da nga def dactylo nekk secrétaire. nekk naa secrétaire def dactylographe bi ma ci jógee ñu audition bu mag am sura mhm. ñu ni dañuy seet xale yi dàq fecc ñu ñëw ñaar tali jël ma. bin ma yóbboo ma fecc ñu jël ma ci bale bi ma def tournée lu mag trois ans tour du monde bi ma ñëwee nag sëy am tuuti yaram uh-huh. ñu ni léegi bale kenn dootu ci nekk di am yaram mais ñu ni ndey mbay man na way dañ ko yóbbu ci ensemble bi ensemble lyrique traditionnel yóbbu ma nag dénk ma xaar mbay ma jaaga mm-hmm. tey lu ma man moom la ndeysaan Adja Xaar Adja Xaar mbay ma jaaga ma fekk fa nag Njaga Mbay mm-hmm. ak ab Ablaye Mbow ma jàppale di moo tax lu ma wax dama leen ciy boole. dëgg la ndax kuy la euh, mën naa xam maanaam spectacle bi nga xam ni euh, da nga ko def ak Ablaye Mbuub def ko ak ki nga xam ne moom moo di xaar mbay ma jaaga def ko ak njaga mbay ndaxte dama gis ay photo ci sama kër maanaam dem si yàlla sama sama euh, sama tante Adja Fatim Diagne yàlla dama demoon këram mu may wan ay photo di ma wan ay photo di ma wan photo yoo xam ne yaa ngi ci mm-hmm. Ablaye Mbuub mi ngi ci mm-hmm. di ma wan photo yoo xam ne Adja Xaar Mbay ma jaaga mi ngi ci ñoo xam ne ñu ngi woon théâtre national Daniel Sorano ban spectacle boo xam ni daanaka euh, ñëpp ko fekkee ci Ndakaaru te mu marqué woon Ndakaaru te ñu xëy suba euh, yéen kaay boobu doon euh, xaw ma naka soir bi ko. waaw boobu mooy soirée bi nu jëkk a def xawaare. Mhm. boobu temps dañu créé xawaare. Boubacar Diro Jean Pierre mhm. ñu ñu xawaare boobu Maurice Sonac Senghor moo fa Maurice. Maurice Sénar Senghor. sunu Maurice Sénar sengoor moo fa nekk moo fa nekkoon. Uh-huh. léegi bi nu créé xawaare képp kuy artiste nga bokk comédien ci la ñu bokk euh, bale bi ci la ñu bokk ñëpp ci la ñu bokk. jour boobu Ablaye Mboub man ak moom ñu ngi woy géej ngara ri de. luy géej ngara de. géej ngara ri géejub ma joora saala ndeysaan ñun ñu man loolu laa woy ak Ablaye Mbuub te booba xale laa léegi ñoom xaar mbay woy gale yàbbi ma ñu fentalaat ma beneen woy muy jin ma jin ma mhm. bay bur faalo maalik ma faal tencandee la ndeysaan borom guddee su guddee fooy fataan burs budus ger di lambaay bangal baax nga yaay ndey soxna mbuub mango ne yaasit maar ak Ibrahima yaasit maar sama waaji yaay Yuusuf ma jigéen bay woob ma yaay ndey Seynu su ma demee ndakaaru ñaay di wax sama loolu da laa def ndeysaan loolu nga def keroog Sorano ñu xëy suba ñu xëy nag hmm. daal di koy def ci journal bi njëkk a am. dëgg la li meloon waaw waaw waaw def xaw ma naka soir. waaw moo ma jaaxal. waaw waaw waaw. <laughs> daal di leen ci bind. après nag ñu nit ñi di ko wax. ku ne galo yaabe nag daal di. maanaam euh, loolu daal daal di ñëw daal. léegi nag bi nu defee loolu Sénégal yëpp di ko coow. Mhm. àddina bépp di ko coow. Mhm. toujours ñu tëgg soirée. daanoon tëgg vendredi samedi dimanche. yëpp Sorano mu fees da daan fees ba nit ñi di taxaw ci biti ndeysaan lii ndey fàttu nit Sorano dafa dee dëgg la mhm. parce que artiste warut a mhm. ndax di nga toll ci circonstance boo xam ne foofa nga gën a mën a woye mhm. waaw foofa nga gën a mën a toppee sa liggéey kon ñenu fa jëlee ñëpp ñoom ci seen bopp dana war a góor góorgóorlu ndax kat bu su maa ngi lay yëgal de duñ tëgg soirée te jëluñu ma jëluñu ñu nga ñoom ma joojaak mhm. ñoom maaw kuwaatee mhm. ñoom daaru mbay ñëpp la ñuy woo mhm. pour renforcer waat ensemble bi pour mu a normal dëgg la balaa cànga baleen fa dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ay fonctionnaire plein noonu ndax ku ci retraite dañ lay fay uh-huh. soo xëyee da ngay signer de présence boo wàccee tam noonu loolu loolu am na solo mais léegi tamit euh, li nga xam ni moom moo di maanaam albam yi. Mhm. Euh, dafa nekk ay album yoo xam ni tamit euh, daf leen di jëriñ. daf leen di yégal fu sore sore. Mhm. mais laataa ñuy ñëw ci biir album yi am na benn morceau boo xam ne bëgg naa ñu xool ko. Mhm. téléspectateurs yi xool ko ñu àndandoog Adja Ndeye Mbaye jiin ma jin ma. mère yaa ngi way jigéen ñi de. waaw waaw man jigéen ñi rek. jigéen ñi rek. waaw ndax danoo am jom. Mm-hmm. ndax nanu sant yàlla bu baax ndax bu jëkk ba góor a daan def lépp. tey nag kër gi ñoo góor gi ñoo jigéen jigéen ji day jàppale góor gi. Mm-hmm. ba gën ko cee jàppale sax. ndax yërmande ga góor amoon moom la jigéen am tey. Mm-hmm. ci jëkkëram. ci njabootam. bu njëkk ba góor la ñuy bàyyi lépp tey nag jigéen dafa takk ndiggam di góor góor lu jàppale jëkkëram jàppale njabootam jàppale ñëppam. ndeysaan waaw ndeysaan euh, nga way jigéen yi maanaam euh, ñu ci rafetlu waaye dañuy gis tamit da ngay way sëriñ Mourtala ak waa kër Xaadim lu baree bari. wallaay sa buri sëñ Mbàkke Maara maama sami ci naawel xam nga sëñ Fallou Mbàkke wallaay sa Fàllu Mbàkke soxna wa bu soo yaayam may Mbàkke mi ma yóbbu woon Tuubaa soxna may sëñ Falloy baayam kooko ma yóbbu woon Tuubaa kooko ma ñaanal njaboot gi yaayu ndey bu soo sëñ Fallu laa gëm moom laa yaakaar àddina alaaxira faloo ca sama kër balay sobri sëñ ba képp maaram maama sami ci naawel jërëjëf fa jërëjëf na am mu am doom doom sëñ fallu moo naan naa moom doom doom bàyyi soxna may mbaake bàyyi fata bàyyi jiili balay sabri sëñ Bakke Mara maam asami ciit naawel yee sëñ Fallou maa koy may maam jaara caamu mbay ñang sama waajee ak a baax te mën a def lu baax ci sëñ Touba.